dal leen jaamu mbokki internet yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV ndax am na tuuma yi nga xam ni moom aji Sarr saa su ne mi ngi koy dëkkee di teg si kaw Ousmane Sonko loolee nekk ab question boo xam ni jamono ji askan wi yëpp ñoo ko samp daal di toog di seetaan ni ki noonee sax ñu gis ko moom Gabrielle kan moom mi nga xam ni fépp fu ñu gis Adji Sarr daal di ko fay gis moom daal di nay àddu beneen yoon si ay kàddu yoo xam ni daal di na koy yëkkati ñu mën ko tuddee sax ab question daal di koy jëmale si ki nga xam ni moo di Adji Sarr ndax accusation yi nga xam ni yaa ngi koy teg si kaw Ousmane Sonko ndax am na bu dee am na c'est waaye yooyu accusation bu fekkee mësta doon dëgg bu boobaa di nga teg gàcce sa bopp te bu boobaa di nga ma teg gàcce doo ca yam waaye kon di nga teg gàcce bépp jigéenu Sénégalais moom Gabriel Kane nag moo daal di yëkkati yooyee kàddu daal di koy aweesi ay paasam doon àddu si dossier bi nga xam ni moo dox si diggante Sonko ak ki nga xam ni moo di Adji Sarr bëggoon naa fekkee jàkkaarloo bi nga xam ni moo nara dox si digganteem ak Sonko maanaam projet bi waaye santeem jamono ji dafa sooxe bu baax a baax te am na yaakaar si yoon nekkat dina ko teg si yoon ba ku nekk daal di xam anakan moo am dëgg